alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursaliin sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin allahumma akhrijna min zulumaati lwahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax alayna bi maxrifati alcilmi wa xassin axlaaqana bilxilmi wa saxxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xazaa'ina raxmatika yaa arxama arraximin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 waaye ñun tam ñu ci jéem a wett lente ak yéen ci jéem a waxtaane lépp loo xam ne yaakaar nañ ne danañu amal njariñ ci suñ mbiri diine ndax aaya jaa waxoon ne fàttali ndax fàttali dana jariñ ñi nga xam ne ñoo gëm waaye ñi nga xamante ne dañoo ragal yàlla fàttali dana leen yokk aw waaraate dana leen yokk ak waaru yal nañ yàlla boole ci ñi nga xam ne dañuy ñeme waaraate waaye def ko itam mu nekk rootukaay ngir ñu mën a defar suñuy jikko loolu ci xéewalam yi la bokk yal nañu ko defal ñoo ngi nuyu bu baax a baax kilifa yi nga xam ne ñooy bàyyi xel jotaay bi yépp xam naa bu ma jëlee nuyooy kilifa yi teg ko ci loxol eh, loxol suñu mag sëñ Seex Gay mu Baay Gay Tàmba di nuyu sëñ Aliou Diop mu suñu baay Daam Diop Mansour moom itam di bàyyi xel jotaay bi sëñ Aliou ñu ngi lay nuyu di nuyu baax a baax suñu ñu jaay euh, sëriñ Ousmane Niang bu nget naka noonu itam di bàyyi xel bu baax a baax mboolem ñi nga xam ne ñi ngi bàyyi xel jotaay bi imaam Seck Ndiour ca la bokk imaam Moustapha Diop ca pikin ci ñuy bàyyi xel jotaay bi la bokk ak mboolem a imma yi nga xam ne waxtu wi dañuy wétlikoo jotaay bi boole yor seeni kurus di bàkk borom bi subhaanahu wa taala ak di ko kañ yal na leen nangul te nangul ñu imaam ko am solo la am taxawaay lool ci diine ji am ko ci société bi ndax ki nga xam ne audience bi ngay am sa digganteeg sa borom moom nga wóolu ba tànn ko ne ko doxal bu doon dañoo war a dem ca pale ba wala ak kilifa war ñoo dalal bu ñu waree waxtaan ak moom léeg-léeg ñu xoolaat nañ fay demee ay xoolin yu bari waaye bu fekkente ne itam dañoo war a jàkkaarloog borom bi subxanahu wa taala ka ñuy wax ne ko doxal ci suñ kanam. bu doom juddoo it moom la ñuy leewu teg ko ci ay loxoom bu nit faatoo it mooy taxaw tiim ko kooku am na wàccuwaay bu rëy ci société bi moo tax jaadu na ñu jox ko ko ndax lim représenté moo tax ñoo ngi leen di wàccee seen wàccuwaay yéen ñëpp te di leen ndokkeel bu baax a baax di ñaanal bu baax suñ mbokki docteur yi ñoom itam seen mu nuyoo xam naa bu ma ko tegee ci loxol sama jigéen doctor Anna danañ ci jot ak mboolem ñi nga xamante ne ñoo yëngatu ci wàllu rawatina ñi nga xam ne ñooy faj bëñ ak yi nga xam ne moo ci aju ndax bëñ moom daa bokk ci kiimaan yàlla yi boo koy xool ndax fi muy génne ci gimiñum nit nga xamante ne nit day juddu jekki-jekki am bëñ yu oyof ba mu yàgg biir gimiñ gi rek ay yax sax ci ndax bëñ moom daanaka yax la rek dëgër këng doon yax waaye mooy tax mu mën a mat mooy tax mu mën a sàq mi mooy tax mu mën a dagg mooy tax mu mën a lekk mu ne mu am solo lool nga xam ne balaa nit ki am sax xam sax am solo gu bëñ am solo mu am mettitu bëñ yal na leen umb waaye fanaanoo mettitu bëñ moom euh, kenn mënta misaal nit mettit wi ci nekk lu dul ne da koo fanaanoo moo tax bi borom bi di wax ne danaa wone sama bopp mu boole ci ne danaa la won sama bopp ci sa bopp mooy xool gi ngay xool sa bopp mën nga ma cee gis sa cati baaraam yi am lu tudd ay we nga xam ne we boo ko doyewul woon dara lu wokkutu rek nga xam ne mënoo koo ñàkk xoolal rek boo mu doon ay we boo waree wokk dara ci sa yaram wi loo koy wokke te loolu yàlla da ko mooñe nit nga xamante ne wokkutu boobu feebar la waaye nag daa bokk ci doomu aadama mënta ñàkk waaye lu ca ëpp rek mu tàmbulee dem faju ji naka noonu mu mooñal ko ay ndox yu nekk ci biir yaramam yi ndox yi di génn ba noppi wuute am ndox moo xam ne bu génnee tiflit lay tudd day ne ci biir gémmiñu nit rek léeg-léeg bu ëppee am yoo xam ne day génn yoo xam ne da koy wanaasu muy jàll te du ko yëg yoo xam ne day def ci biir gémmiñ gi waaye mënu koo ñàkk mënu koo ñàkk yàllaa ko mooñe noonu am yeneen yoo xamante ne daa du bàqta mooy ndox moo xam ne day jaar ci bàkkan ngeen baal ma waaye moom it mënu koo ñàkk ndax bakkan day jël ngelaw ngelaw li muy jël dafa tàng dafa ñagas dafa ñaw fi muy jaar bu amut huile bu fa nekk euh, di fa di ko di ko tooyal day rocceeku moo tax boo demoon euh, ci àll ba di dox tombeeg muy ngelaw ngelaw lu tàng ngelawul jaas wala mbooya da ngay gis nit koo xam ne bakkan yi day rocceeku maanaam buntu bakkan yi day xonk coy rocceeku ndax ngelaw li bu fi bàqate nekkul doon noonu la bakkan yi lépp di booye rocceeku waaye borom bi subhanahu wa taala defal ko ndox mu tudd bàqata mu am meneen ndox moo xamante ne daa nekkaat ci kanamu nit ki tudd rangooñ nga xam ne day génn day génn léeg mu kontaan bég lool ba jooy rangooñ yu sedd guyu léeg mu amu naqar lool ba jooy léeg mu am lu koy metti lool ba mu jooy waaye moom itam borom bi subxanahu wa taala bind bindal ko ko mu nekk ci moom nga xam ne booy xool sa bopp yow miy dox nga xam ne ab usine nga maanaam boo demoon ci usine ba. ñu yóbbule ca biir dañ lay won tiwo yi ne la fii la lii di jaar fii la lii di jaar fii la lii di jaar lii mooy togg nangam yaramu doomu aadama it melaat noonu maanaam tiwo bu ne nekk ci moom lenn lu nekk am lu muy def deret nekk ci ndox nekk ci di jaar ci ay sidit am der bu tegu ci kaw nekk yaram biir rek la muy liggéey xol bi nga xam ne du taxaw mukk sa xol bi fi mu ne boo dégloo dégg ni mu naan gug gug gug di baatare keroog ba nga ganee àdduna bis bu taxawee rek ñu yóbbu la ca armeel ya mooy bu nit ki di faatu xol baay taxaw waaye du taxaw mukk borom bi subhaanahu wa taala moom mooñe noonu nit bu ko defee nit man di ci xool boppam ndax xool gim ci xool boppam day tax mu xam ne dundam gi doonul lu ordinaire ndax yooyu yëpp di dem dafa am yu koy alimente mu di ci góorgóorlu kemtilaayal kàttanam li koy dundal nekkut ci loxoom li koy taxaw loo nekkut ci loxoom waaye nag sàmm ko ak góorgóorlu ci moom ci loxoom la nekk ak loolu yépp nag lan la ciy jëf lan mooy finalité bi lan mooy finalité bi ci jëf-jëf yooyu ci biir ci la am nag lu ñuy tudde ak mbaax moom laa doon waxtaane démb ba agsi ci war a waxtaane ay xeetam ndax daa mel ne albir dafa am ay xeet anwa dafa mel ne sax boroom xam-xam yi dañuy wax ne wal birru nawaani maanaam baax moom dafa mel ne dañ ko xaaj ñaari xaaj benn bi ñu ne sillatun wala sillatun benn bi ñu ne maarufun maanaam lu mel ne ak jokkale ak jokkale mooy benn bi euh, silla bu ma ko waxee liñ ciy jublu mooy atabarru'u bi batlil maali fi jihaatil maaduda li xayri awadin matlub euh, nga xam ne mooy euh, maanaam mbaax gi nga xam ne mooy jokkale nit ak dara baaxu mën a joxe alal baaxu mën a joxe daraja ak tabe ak tabe rek mën nga ko waxe tabe samaxatu nafsi wa saqaahuha maanaam ak tabe tab tabe mooy safaanum nay mooy safaanum ngott wa man yuuqa suxa nafsihi fa ulaika humul muflixuun ku tabe dugg aljanna ndax ñi tabe ñooy ñu baax ni geneen xeetu mbaax gi te mooy almaaruf mooy def lu baax def njekk rek njekk maxruuf danañ ko xaaj léeg def ko ñaari xaaj muy euh, maxruuf ci ay wax ak maxruuf ci ay jëf xawlan wa amalan bu dee ci ay wax mooy wax ju teey tiibul kalaami wa xusnul bishri maanaam di wax wax ju wax ju wax ju rafet wax ju nooy di wax mbégte teey teey waaw loolu mooy indi ak cofeel ak mboolem xeeti wax yu rafet yi bu boobaa day dugg ci biir ak mbaax dugg ci taxawaay bu am solo boobu te loolu jikko yu rafet la wax ju rafet daa bokk ci jikko yu rafet wax ju ñaaw daa bokk ci jikko yu ñaaw wax ju teey daa bokk ci borom jikko yu teey moo koy man wax ju ñagas ju dëgër borom jikko yu ñagas moo koy man waaye wax ju baax daa bokk ci ak mbaax ku baax da ngay wax wax ju baax waaw ku baax da ngay wax wax ju baax nga xamante ne duñ la dégg mukk nga wax baat boo xam ne dañ naan la tuub ko boo seetloo sax ci penc mi ku ñuy jiiñ ak mbaax wala nga sol mbubbum ñu baax ña boo waxee wax ju joonu ñëpp naan yë kilifa gi wax baat bi nga xam ne kon baax ci ay wax baax ci ay jëf loolu daa bokk ci yi nga xam ne lu am solo la bu dee jëf gi ci maaruuf mooy baslul jaa i maanaam nangoo joxe daraja jox nit ñi seen cër waaye di dimbali ñi nga xam ne war nga leen a dimbali ci bëgg ak mbaax ñeel nit ñi tasaare aw yiw tasaare aw yiw ta bañ a àgg ci yàq ak taxawaay yi nga xam ne moo ci aju albir euh, ak mbaax alxuraan jëfandikoo na ko jëfandikoo na ko nga xam ne boo doon jël baatu albir ci boppam ñëw na ci alxuraan ci ay anam yu wuute mën naa cee jël bu njëkk ga nga xamante ne dañ koo fatxa boo waxee albarru innahu huwa albarru rahim loolu daa bokk ci turi borom bi subhaanahu wa taala yàlla ne moom mooy ku baax ki mooy aji yërëme ji moom borom bi subhanahu wa taala innahu huwa al barru arrahim wala barru rahim suñu borom subhanahu wa taala ca yonent yàlla isa tagg wa ko borom bi tagg ca ba muy wax ak moom ca ñaanam ga daa waxoon wa barran bi walidati danaa baax lool ci samay waajur waaw ah, danaa du doon ab bandi walam yajal ni jabbaaran shaqiya waaye nag wa barram bi walidati damay baax jëm ci samay waajur ak mbaax na ko say waajur yëg bu ñaareel bi nga gis ca eh, yonent yàlla yaxya moom itam wa barran bi walidayhi waaw wa barran bi walidayhi ndax isa moom yaay rek la am moo tax bi walidati danaa baax jëm ci sama yaay danaa baax jëm ci sama yaay yonent yàlla isa moom amut baay yaay la am yaay la am waaye nag na nga baax jëm ci say wayjur muy ndey baay e moo tax yonent yàlla Sakariya moom wa barram bi walidayhi bu ñeenteel bi ci ña dëkke malakooti sama sama muy malaaka boroom borom baa ngi wax ak ñoom di ñu wax ñooy ñan mu ne bi ay di safara kiraamin barara waaw ñoom day ñu tedd lañ ñu baax lañ ñoom malaayika yi nga xam ne boo jëlee albirru ci kasra gi buñ ko maasee noonu da ngay gis wala walakinnal birra man amana billahi waxoon naa la ko démb yàlla ne ak mbaax mooy gëm yàlla bi maanaa alxayr lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbun ca ali imran borom bi ne euh, du ngeen baax mukk lu dul ne da ngeen a mën a joxe li ngeen bëgg waaw nit day mën a joxe lu mu bëgg lool bu ko defee soog a baax maanaam di joxe loo xam ne ci sa xol la jóge mbaax gi wax baat bi ak nim mu ñëwee danaa ñëw ci aayaat yi nga xam ne ñoo ciy wax alquran a ngay waxaat ci beneen waxin atamuruuna naasa bil birri borom bi ne ndax da di di eh, digal nit ñi ak mbaax boobu ma ngay wax ak yahood yi waaye nag Eh, ba suñ joon yàlla tey bépp aji digle man caa digge sa bopp yàlla ne ndax da ngeen di digal nit ñi lu baax ba noppi fàtte seen bop fàtte seen bopp mag ñi daan la wax ne la yow de eh, leeruk eh, maanaam njariñul sondeel nga yor da ngay leeral nit ñi waaye yaa ngi lakk sa bopp yaa ngi lakk sa bopp baaxut li ngay digal nit ñi te muy lu baax nekk ca nag wala tajaalu llaha urdatan li aymaanikum an tabarru baat ba dikkaat foofu boo ñëwaatee ci baatu albirru nga dégg ci jokku mbokk borom baa ngi wax ci alquranul karim bu ma juumul suratul mumtaada laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatiluukum fi ddiini wa lam yuxrijuukum min diyaarikum an tabarruuhum an tabarruuhum maanaam an tabarruuhum ñooy firi dañuy wax ne ay tasilu arxaamakum ngeen jokku seenu mbokk te mooy baax ci sa biiru mbokk baax ci mën a jokku mbokk ak man koo dox bu ñëwee ci aaya yi nga xamante ne day wax ci ak mbaax aaya yu bari ci alquranul karim la ba ca jiitu ci maanaa topp borom bi subhanahu wa taala ak jëf ju baax ci lay jëm topp borom bi eh, ataa ak jëf ju baax muy fi'lul xayraati aaya ji jàng naa ko ay yoon ndax baatu al birr da cee ñëw te ñuy waxtaane birr jublu ci ak mbaax borom bi ne laysal birra an tuwalu wujuhakum xibalal masriqi wal maxrib yàlla nee na julleeg sëlmal dong doyut ci ak mbaax waaye daa bokk ci baax dëgg-dëgg te mooy tax julli gi mën a baax mooy ngëm yàlla day jiitu nit ki day gëm yàlla te wéetal ko ak ya aju ca ngëm yépp muy gëm yàlla gëm alaaxira gëm malaaka yi gëm téere yi gëm yonente yi yooyu yëpp nag luy dox diggante nit ki ak boroomam la yuy dox diggante nit ki ak boroomam la nit duggagu ci nit duggagu ci amana billah wal yawmil axir wal malaika wal kitaabi wan nabiyin diggante nit ki ak boroomam waaye diggante nit ki ak ay moroomam it boroom bi du ko fàtte moo tax mu ne bokk na ci mbaax mu mën a joxe alal mën a joxe alal mën a dimbulee mën a jox ala xubbihi zawil xurba wal yataama di jox say mbokk di jox say jàmbur di jox jirim yi di jox miskin yi jox étranger yi jox ñi yelwaan jox ñi ami problème door a wax nag wa aqaama salaa te daa waxoon fee laysal birra an tuwallu wujuhakum waaye fii nag wa aqaama salaa taxawal julli joxe asaka matal kóllëre di muñ yàlla nee na ñooñu mooy ñu dëggal ñooñu mooy ñu baax ñi aaya jooju jaaroon naa ci démb ay yooni yooni yooni yooni yoon ci ak mbaax borom bi subhaanahu wa ci aaya yim ko jëfandikoo ci alquranul karim boo demee ca surat al ba léegi ma ngay wax naan yasaluunaka anil ahillati qul hiya mawaqitu linnaasi wal xajj yàllaa ngay wax naan yonent bi alayhi salaatu wasalaam danañ la laaj lu jëm ci weer yi waaye wax leen ni leen nattuwaayu nit ñi la aj màkka yi ci la nekk li tax ma jàng aaya jooju mooy baat yi ci topp borom bi nee na walaysal birru bi an tatul buyuuta min zuhuriha walakin al birra man ittaqa watul buyuuta min abwaabiha wattaqullaha laallakum tuflixuun yàlla nee na ak mbaax ku baax du bët yàlla nee na ku baax du bët ku baax du burle waaw ku baax du burle ku baax du détourner dara yàlla nee na ku baax dëgg lenn lu nekk fa mu ko war a jaarale la koy jaarale moo tax mu ne ak mbaax nekkut ci ngeen di jaare ngeen di dugg ci mbir di ko jaare ca gannaaw waaye ak mbaax dëgg ak ragal yàlla mooy kuy dugg ci kër na jaar ca buntu ba waaw kuy dugg ci kër na jaar ca buntu ba te ngeen bàyyi bët te ngeen bàyyi bët waaw borom bi subxanahu wa taala nee na ku baax du bët bu ñëwee ci kër day wax ak kam war a waxal waaye du ko fa bàyyi dem ci kam wërta waxal di wax ak moom waaw <laughs> ak yee ca aju yëpp nga xamante ne buñ ko buñ ci taxawoon ci di ko saraa mu yaatu lool bët ci ak kër mooy buntu kër gi nekk fi nga lawi perma ca ginnaaw bu deew sàkket la daal di jaar mën naa am kilifa gaa nga toogoon ci buntu kër ga kuy dugg mu gis la yow dugg nga te yëwu la. bu dee bëtt ci jëflante mooy loo xam ne yoon wii lañ tracé ne fi lañ war a jaar ngir am ko yow nga jaar ca gannaaw nag moo xam dangaa neexalaate xam nga ne loolu daa mën a yàq ab économie ba noppi mën a biimeel am réew nga jaar ce gannaaw jëfandikoo loxo bu gudd ba lijjanti la ngay lijjanti ñëw toog bu ko ñëpp di def day mujj yàgg lu baree bari day yàqu te day mujj nit ki du jàpp ne mën na maa am dara ci mérite léegi loolu dafa tàmbulee am nit ñu baree baree baree bari jàpp nañ ne seenum njàng warul tu leen a mën a tax am liggéey faaw nga bët faaw nga amee lijjanti faaw nga am loxo bu gudd jàpp naa ne sama këyit bi tak tey ma di ko lijjanti ji moo xam ca police ba la moo xam ca mairie ba la moo xam ca société ba la wala ca poor ba la damay jàpp ne su ma demee jaar fa ma war a jaar duma ci gaaw a jot léegi su ma xëyee dangay woote woo diw ne ko koo fa xam koo may booleel koy def nangam koy def nangam daal di bët nga xam ne mën ngaa ñëw ba ci buntu bi sax waroon a dem ca kees ga lijjanti ko am ku fa nekk koo xam ne moom kenn falu ko am njàngam yóbbu ko fa waaye walaakinnal birra mani taqa ak mbax dëgg-dëgg nee na mooy ak ragal te ragal yàlla mooy déglu programme bi mu rëdd nga jaar ca mu ne watul buyuuta min abwaabiha waaw watul buyuuta min abwaabiha waaw boo boo soxlaa mbir del jaar fa nga war a jaar boo fa jaaree jot ca day yomb boo fa jaaree jot ca day yomb boo demee ci ab dëkk bëgg a wax ak waa dëkk ba te bëgg ñu dégg leen danga nga ñu déglu la da laaj boroom dëkk bi waaw ana boroom dëkk bi wala ana sëriñ bi boo ñëwee ci kër bëgg ñu abal la oto doo dem àbb ko safoor bi te borom kër gi nekk fi te borom kër gi nekk fi da bëtt bu boobaa bëgg nga mu yóbbu la wala mu déposé la wala mu wàññil la aw yoon dangay dem ba ca ndeyi gi wala bàyyi mbill gi nga waxtaan ak moom bu ko defee mu um, mu la nga war a jot nga jot ci borom bi nee na loola mooy ak mbaax ku baax dëgg-dëgg du bët de leen jaar ci buntu yi mu jëfandikoo ci aay ji ñaari baat ñaari baat yoo xam ne baat yëpp day dellu ci ak mbaax muy laysal birru ak walakinnal birra waxoon na laysal birru an tuwallu wujuhakum walakinnal birra ci aaya ji ma njëkk a jàng waaw laysal birru wala laysal birra an tuwallu wujuhakum xibalal mashriqi wal maghrib toog di werante eh, eh, fii mooy penku fii mooy sow julli jublu penku aw yiw wala jublu sow aw yiw toog di werante ci yenn détails yi yàlla nee na du ak mbaax mbaax mooy am jom ba xam ne maa leen bind doyloo ma gëm yonent bi mu jàngal leen ni ngeen may toppe jàng alxuraan mu firil leen ni ngeen koy defee ngeen dox ñëw bu ngeen agsee ma gërëm leen loolooy ak mbaax ñetteel bi te mooy bi ñu mujjee ci wàllu aay yàlla jëfandikoo ci wàllu mbaax nee na lan tanaalul birra lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbuuna wa ma tunfiqu min cheyin fa inna allaha bihi alim yàlla nee na yàlla nee na du ngeen amul mbaax mukk li feeg mënu leen a joxe lu ngeen bëgg waaw nit ki di mayee loo xam ne doyaloo ci da ngay natt sa bopp nag leen léeg bu dee mbubu nga maye mbub moo xam ne doyal a góo ci waaw ba léegi yaa ngi koy bëgg tey nga ko gën a bëgg waaye nga man koo maye nag ndax lim baax waaye yow ngaa bala ngaa bala ngaa yippil kenn rek daa ràpp yu rapp daal ngay dajale yi nga xam ne soxlaatoo ko yow daanaka ku la ku maanaam da ngaa bëgg a wu say bagage rek waaw débarrassé wu say bagage rek nga ci bëgg waaye da ngay da jàng nag di joxe li nga bëgg waaw lii dafa rafet daf laa neex nga man koo joxe nga mën a ko ak moom ku baax dëgg day jox nit lu ko amal njariñ man nga caa déggee loolu day jox nit lu ko amal njariñ waaw day day mën a bokk ak nit ñi lim yor waaye day mën a joxe loo xam ne moom la bëgg yàlla nee na lu ngeen joxe nag xam naa ko lu ngeen lu ngeen joxe rek eh, tama tax lu mu tuuti tuuti min shay'in waaw moo xam bari na moo xam néew na waaye lu mu tuuti tuuti tuuti borom bi subhaanahu wa nee na xam naa ko lu tax borom bi tudd ak mbaax tekki al infaax maanaam dépenser joxe bu dee ca donga ya bu ñuy yelwaan am na kër yoo xam ne boo ñëwee dañ lay tibbal bool bu baax sarax la ñenn ñi am ay doomu daara yoo xamante ne ñoom la ñuy féetewoo di leen am kër yoo xam ne ak yopp la doon nekk yopp ñi doon yelwaani njaareem xam nañ lan mooy ak yopp yopp mooy boo ñëwee doo wax laara bi laaraan da ngay ci buntu kër gi buñ añee ba noppi jox la bool bi Ah, jox la bool bi ñoon doon añee sotti ci xooñ li sotti sotti ci desu ñeex mi maccaat mi waaw sotti ci la desoon ca ceeb ba ak boppi jën yi daal ñuy daal ñuy jox waaw wala daal di jox donga ya bu ko defee ñoom ñu daal di xéewlu am ñoo xamante ne nag duñ saraxe mukk luñ bëgg moo tax leleen léeg nga naan donga yi cere ji li ma leen saraxoon ci buntu kër gi lañ ko tóor parce que yow li gën a bon wal am nañ ma baal ci baat boobu li gën a euh, nga ñàkk bëgg ci li nga li nga doon xéewloo moom ngay jël jox leen ko jàpp ne ñoom ñoo la ko war a yóbbul bu ko defee ñoom buñ génnee def yëfi donga rek diw ko ci buntu kër gi sëñ bi dem seen yoon waaw diw ko ci buntu kër gi dem seen yoon waaye daa aju ci nit ki boo koy jox nga jox ko nga joxe ngay joxe ci li nga bëgg ngay joxe ci li nga bëgg booy mayee ay yére na doon ci yére yi ngay sol na doon ci yére yi ngay sol boo yekkalaate wu ñam na doon ci li ngay lekk waaw booy dimbali nit na nga ko def ni nga def sa bopp yàlla nee na loolu mooy ak mbaax moo ko wax nag moom borom bi lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim yàlla nañu yàlla boole ci ñu baax ñi te nangul ñu suñuy jëf yu nëbbu nangul ñu suñuy jëf yu feeñ te dimbali ñu ba li ñuy jëf yàlla doongu tax ñoo ngi jaajëfal ñëpp te di leen siyaare bu baax a baax di leen baaluwaat àq di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu nangul ñaan ko mu boole ñu jéggal jaajëfal bu baax Oustaz Alioune Sall mu baax mi moom la ñu bàyyee toogu bi e, ñaan borom bi subhanahu wa mu sàmm ko ñaan yi muy ñaan ci ñun yal na ko yàlla nangu ñaan ko askan wi di ñaanal yépp yal na ko yàlla nangu ci moom mu ñëw ak ñun ci waxtaanu fajar yi ñu ànd ñun ñëpp déglu ko allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali kama la nihaaya li kamalika wa adada kamali seen mbokku Mbàcke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala